gan Adama Samb Retramos la bokk réseau la nag bu yëngatu ci transport moderne fii ci Sénégal sëñ Samb ginnaaw bi ñu nuyee nga ak yéen ak jàmbooñ pann ñi dem Casamance bëgg julli ji. Hmm. est-ce que yéen chauffeur yi nga xamante ne daw ci tal bi yéen ngi leen di yombal. Hmm. dem dikk bi. Euh, waaw Adama sàmb euh, vice président Retramos. Hmm. ci biir Kër Natangué. Euh, sunu coordinateur sunu coordinateur Abdou dañu jàppale ci lu bari ci transport nañu fexe ba transport nit ñi di dem ak di dem ak dikk. ci am sécurité du ñu am benn jafe-jafe. ñu tàmbale ko ci ñuy dem Casamance. waaw ñuy dem ñuy dem Casamance euh, yàlla dafa def li ci ëpp ci géej gi lañ doon jaar. Mm-hmm. comme ni ngeen ko waxee euh, am na ci bato yoo xam ne dañu paan benn rek moo ciy dem kon dina xaw a diis ci tabaski gi nii. Mm-hmm. muy mën a yóbbu ñëpp ak a ñëw mais transport baa ngi fi ñun ñu ngi fi incha allah pare nañu pour jël passager yi yóbbu leen si jàmm. indi leen si jàmm ak sécurité mbaa du ngeen laxas jaan ci prix parce que yéen nag da di profité des fois ci occasion yi bato yi pann rek ngeen yokk paas yi est ce que du demee noonu non bato yi xam nga xam nga bato yi xaw na yàgg a te ba kenn yokkul paas yi mm-hmm. incha allah du ñu yokk benn paas mm-hmm. dinañ leen yóbbu ci niñ leen doon yóbboo ci jàmm ak salaam ñu dem ànd ak seen njaboot dem tabaski yi incha allah. Mhm. léegi bu ñu waxee situation général bi ci Sénégal dem beeg dikk bi ñi jóge ci diwaan yi bëgg a julli ji seen ay kër. Mhm. ñooñu aussi yan matukaay ngeen samp. Mhm. ngir dem beeg dikk bi gën a yemb. waaw niñ ko niñ koy sampee ci dem beeg dikk bi li ñuy def ci biir dëkk bi. ak ni ñuy def ci biti yëpp benn la. mooy xëy defar sa oto ba mu baax nga fas yéene jël client yi. yóbbu leen ci fa ñu jëm. ña war a jóge fële ñëw ñu indiwaat leen fii ci biir dëkk bi ci jàmm ak salaam. ñun pare nañu incha allah pour jàpp ci li may lancé appel rek mooy sama mbokk chauffeur yi. mooy ñun nañu def ndànk. nañu def ndànk koo xam ni da nga jóge fii war a dem. boo demee ba àgg soo soo sonnee. nga noppalu nelaw. dina ñëw ci loolu. ci vitesse yi ak accident yi mais laata mm. loolu dañuy wax tamit ci mm. yomb yombalin yu ba léegi ak paas yi. waaw parce que sa saa yu tabaski jotee yéen da ngeen di da ngeen di yokk paas yi. loolu est-ce que yoon la xam nga yokk paas. yokk paas moom jàpp ma ni yoon la wala du yoon moom li ci ëpp sax des fois da gis ni clients yi seen wàllu bopp ñoom ñooy bëgg a yokkal seen bopp paas yi. ci nag parce que la preuve léegi maa ngi lay wax ni léegi bi ma jógee ñaari tali léegi di ñëw. Mm-hmm. par exemple normalement 20 minutes na ci mais léegi def naa plus de lu ko waral maa ngi embouteillage bi la parce que maa ngi waroon fay taximan bi 1500 mais bi ma ñëwee 3000 laa ko fay parce que man sama wàllu bopp bi ma ñëwee xam naa carrément ni vraiment lii jaadutul parce que yoon fu nekk jaar na fa mënul agsi TFM kon ñun am na foo xam ne tamit boo fa àggee en tant que sénégalais ay jullit bu fekkee nit ki da ko jël occupé ko. loo ci ci vingt minutes nga dem ak moom ba une heure de temps jëm jëm deux heures liggéeyam la est-ce que waaw liggéey non si liggéeyam la xam nga man xam nga man ki ma ki ma indi yow chauffeur nga moo tax nga mais mais ko amul moyen xam nga moom laajuma ba tey waxuma yokkal ma waxuma bu ma yokkal waaw ñun nan wax ci yow am nga mais ñu wax ci am ñi amut te bëgg dem seen ay dëkk ñi amut te bëgg dem seen dëkk insha allahu rabbi daañu leen yóbbu ci condition yi ñu leen doon yóbboo bañu àgg ci seen dëkk si jàmm ak salaam hmm. lii mooy li am. man gisaguma fi benn kii boo xam ne da ngaa ñëw ñu la 3000 nga doon fay tey 5000 nga. am na ci garage même même xam nga ñëpp bokkuñu yem. la preuve mooy yeneen yeneen jaay ñu fiy jaay ay pomme de terre ak soble ak yeneen yu demee noonu. nit ñi de moment de tabaski bu léegi day xaw a jafe ñu yokk ci. même bagage képp ko mën a def maa ngi wax ci yokk bële même bagage yi. Mm-hmm. da ngay gis par exemple kuy transporter xar. Mm-hmm. ñu fayloo ko. prix hmm. nit maanaam xar mi bu doon nit ki day fay cinq cinq mille francs pour hmm. dem par exemple a Jolof hmm. ngeen fayloo xar mi cinq mille francs loolu aussi est-ce que du ngeen profité ba léegi ci du profité non non du xam nga lu nekk bu ñëwee ñun ñëpp dañuy boole def jàngat bi lan la mooy bu ñëpp ne kër kër ni këpp war a dem dem jafe ñi ñi nga xam ne tey ñoo yor biis di génn bu ñu demee dakaar bu ñu jógee fii dem Fuuta bala ñuy ñëwaat mën na leen a côté deux ou trois jours parce que dafay xat lool. ñun suñu biir suñu biir ñun ñoo war a xalaat nan la ñuy def parce que euh, chauffeur bi. Mhm. otoom la yor di dawal. Mhm. yoon yi mu war a jaar moom munul munul xaalal boppam yoon yi bu ko bu fekkoon tey état dafa jël euh, xaalal ñu yoon yi ba mu baax ba nga xam ne ni ñu doon demee avant tabaski la ñuy demee peut-être paas yi mën naa nekk fa mu nekkoon mais bu fekkee da ngay jóg di dem ah. war a def une de temps def cinq de temps loolu tamit dafa xaw a métti ñun nag ñun ñëpp ay sénégalais lañu chauffeurs yi maa ngi laa si appel chauffeur sama mbokk chauffeurs yi mhm. nañu wàññi bàyyi ko fa mu ne ñu jàppale julliti ñu dem julli jiti ñëw ñëw si parce que jaamu yàlla la. surtout loolu am ndax jaamu yàlla. am na mhm. da ngeen di profité chauffeur yi du nelaw ak yooyu. Mhm. naka ngeen def ngir yow tamit sensibilisation bu nga def ko say ay naataango. Mhm. ngir ñuy daw ndànk di dal ndànk comme ni ko sëñ Fall waxee woon. waaw daw ndànk dal ndànk moom daw ndànk sax ku ko def ngaa bañ a dal Euh, suñ Fallou moom waxam jooju moo waxoon kenn téere la kenn du ko dindi. boo déggee sama commencement wax sànq dama ne la chauffeur bu jóge fii di voyager dem ba àgg fa nga jëm nga gis ne yow da ngaa gëmantu chauffeur yi bari nañ boo gisee téeméeri chauffeur yi taxaw am na téeméeri yi taxaw am na ñaar téeméeri chauffeur yoo xam ne ñu ngi taxaw. kon boo demee ba àgg nga sentir sa yaram ni yow da ngaa gëmantu bul forcer gaareel nga tëdd nelaw jox beneen chauffeur mu dem liggéey. parce que it euh, biis yi biis buy yàpp ay 65 à 70 places kooku nga jël benn xale bu ndaw jox ko ko mu sol kabam wàccee tubayam kooku man jàpp ma en tant que chauffeur chauffeur dafa war am comportement bu baax. ñu gën a responsable waaw ñu gën a responsable ñu jox leen ko nga xam ne kii dawal oto bi père de famille buy dawal oto bi dina xalaat ñi ci biir oto bi xalaat ñi ci këram. waaye bu fekkee da ngay dawal xalaatoo dara lu nekk mën a parce que biis du caaxaan mm-hmm. oto buy daw di yàpp 70 personnes loolu responsabilité bu rëy rëy la boo ko dee toog di ci dawal sax waroo noyyi parce li nga yor moo bari mm-hmm. accident yi nag bari nañu trop des fois tali bi mooy créer accident bi des fois chauffeur bi ci boppam mooy créer accident bi des fois oto bi la mm-hmm. kon ñett yooyu yëpp dañ ko war a xool jàngati xool ba xam nan la ñuy mën a saafaraa loolu mhm. li nga xam ne nag mun mooy suñu wàllu muy chauffeur bi li may wax sama mbokk chauffeur yi mooy bu nu yàkkamti nañ def ndànk parce que benn bisu tabaski ñaar ñetti wala ñetti bis jërul ñu ciy xër-xëri boo sonnee te nelaw te dal nelaw ñu wax ci ci transport xar yi ba léegi maa ngi ko doon junj sànq mais gis mhm. nañ même anam yi ngeen yabee xar yenn saa yi day doy waar da nga gis xar yu ciy faatu wala condition yi aussi du respecté tamit c'est vrai que duñ ay mala lan wante tamit jaadu na ñu jox leen gëdd ga ca war loolu dun ko nemmeeku yenn saa yi ci sa naataango chauffeur yi. waaw xam nga am na chauffeur yoo xam ni xam nga xamuñu affaire jur bu dee man chauffeur bi nga xam ne def naa transport mais def naa sàmm su ma yoree sama oto dinaa xam ndax oto bi euh, oto bi yan ñaata xar la war a mën a jël. Mm-hmm. wala oto bi su xar yi nan lañu war a taxawee. Mm-hmm. parce que boo gisee boo gisee ci taxawee ci tali bi war a ñëw Dakar jaay si xar tax laa yàkkamti nga gis benn frigo bu ñëw. nga xam ne amul benn fan benn air fu mu mën a jaar pour dugg nga jël say xar dugal ci biir bu ñu ko ubbee ba ñëwee bu yëpp déewul ci bari lay kon dañu war a xool oto boo xam ni camion yi nga xam ni dafa yaatu ci biir nga jël lu yam dugal ci chauffeur bitim bul bëgg xaalis ba ñu ñëw jël oto boo nga yor benn frigo mu wër la lii bon dina la fay sa xaalis hmm. mais kii su dugalee xar yi am na xar yoo xam day loru parce que boo dee jaay xar indi sa ñaar ñett dee si wala ñeent perte nga hmm. kon ñoom ñoo war a ñoom ñaar yëpp war ñu xool chauffeur bu buy yàpp mu xool nan la yebe ki indi xaram di yeb mu xool oto bi mu yeb ay xaram ndax bu ci yaree bu ko ci yebee xar yi dinañ mën a àgg si jàmm wala déet mhm, ñu ngi lay sant di la gërëm Adama Samb di jiite di fàttali ni yow yaay vice président Retramos di réseau bi yëngatu rekk ci wàllu transport moderne mhm. ci Sénégal ñi ngi doon wax